boroom xam-xam yi nee nañu albaxru amiqun fala budda min safinatin wa tariqu baidun fala budda min zadin wa raqibu basirun fala budda min ixlaasin nee nañu géej gi dafa xóot mënta ñàkk nag nga jëfandikoo gaal mooy àddina dafa bari ay ndëgg sarax faw nga jëfandikoo xel ak sukkandiku ci sa borom nee na yoon wi daa sori de faw nga am yobbal addina ñu waxee addina yàggut ah yàggut de waaye lu ne xeñ ci kon faw nga jëfandikoo itam li nga xam ne mooy sukkandiku ci sa borom nee yàlla mi ngi gis jaam yi kon nag faw nga sellal ndax loo mën di def te yàlla taxut boo ëllëgee zéro lay doon xabaa an mansuuran lay doon du la dikkee dara bayil xel